nee na kon wóor nañu ne yéen ñi nga xam ne yéen a ci nekk nee na jëlale nañ leen sax waaye boole ku ko teewe xam nañu ne digle na ko diggee na ko. li nga xam ne suñu boroom diggee na ko. ci ci mboot ci xam ne ko jege ku nga xam ne ku ko jege ku ne. suñu borom jéggal na na la. nee na kon loolu. tax na tax nooy sant. nooy sant. teewe gi nu ko teewe. teewe gi nu yéen. ànd xam naa li ci am solo rek. nee na kon xam na ne li ci am solo rek. mooy yéene woon ga. mooy yéene. woon ngeen ko ci njaal ga. yéene ngeen ko ci njëlbéen ga. muy ñaanal Cheikh Mountakha mi. muy ñaanal Cheikh Mountakha yàlla bàyyi ko fi. yàlla bàyyi ko fi. àggaleel ko yéeneen ci liggéey sëriñ Tuubaa bi lii ngeen def nag lii ngeen def nag lu am solo la ci moom lu am solo la ci moom dugg na ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéeyal ndax dugg na ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy liggéeyal sëriñ bi kon nag nee kon nag bokk ñaanal ko nu bokk ñaanal ko yàlla bàyyi ko fi yàlla ko fi àggaleel ko yéeneen ci loolu àggaleel ko yéeneen ci loolu soxna Bali mi nga xam ne itam soxna Bali mi nga xam ne itam bëggam la ak lépp bëggam la ak yéeneem. waaye bëggam gépp ak yéeneem. waaye bëggam gépp ak mooy jëm ci Cheikh Mountakha. mooy jëm ci Cheikh Mountakha. kon nag. Ah, kon bëggam googee. bëggam googee. ak yéeneem joojee. ak yéeneem joojee. ci liggéeyal Cheikh Cheikh mii. ci liggéeyal Cheikh Mountakha mii. noo ngi ñaan ci bii. noo ngi ñaan ci bis bii. xam naa ne ñaanal ngeen ko ko. nee na xam na ñaanal ngeen ko sax. yàlla àggale ko. yàlla àggale ko. bàyyi ko fi. bàyyi ko fi. àggaleel ci lu baax. àggaleel ko yéeneem ci lu baax. àggaleel ko yéeneem ci liggéeyal seen. àggaleel ko yéeneem ci liggéeyal seen Muntaxa mi. nee na kon Seex Hamza. man dama doon wax naan baatub cant waaye nag teewul. nee na da doon wax baatub cant waaye nag teewut. waaye noo leen di sant bu baax. waaye nag teewut noo ngi leen di sant bu baax. ngi leen sant bu baax. Seex Muntaxa mi ngi leen di sant bu baax. cant gi. moo tax cant gi. li tax cant gi. li tax cant gi. da ngeen a nekk ci li ko neex lool. da ngeen a nekk ci li ko neex lool. nag looloo tax mu di leen sant. nee na kon nag looloo tax mu di leen sant. ngir loola di yokk. ngir loola di yokk. taxawaay bi di yokk. taxawaay bi di yokk. taxawaay bi nga xam ne yaa ngi koy taxaw sa liggéey maam bi ci sa xasiiday maam bi itam yàlla nangu ko. nee na taxawaay bi nga xam ne yaa ngi koy taxaw sa liggéey maam bi ci sa xasiiday maam bi yàlla nangu ko. yàggal la ci. yàggal la ji. boole mboolem képp ku xam ak mboolem képp ku nga xam ne mi ngi képp koo xam ne mi ngi ànd ak yow ci liggéey bi. jërëjëf nee na kon jërëjëf Mbacke. yàlla na yàlla nangu lépp. moom jërul kenn kenn la nga soxla suñu borom moo xam. na ndax suñu borom moo ko xam ku bëgg lim da ngay jëm moo xam xol yi. suñu borom moo xam xol yi. te biig ba tey yéen a ngi ci. te biig ba tey yéen gi ngi ci. kon wóor na ma ne. nee na kon wóor na ko ne. kenn ku ne. kenn ku ne. la nga bëggoon. la nga bëggoon. te yéene ko ci. te yéene ko yàlla dana la ko defal. yàlla kon jërëjëf. jërëjëf jërëjëf. kon ñëpp tàllal ñu ñaan amiin amiin amiin amiin amiin